jeexal li nga xam ne moom mooy la revue des titres Rosita merci ngi noonu c'était la revue des titres ngeen naan noonu si ak Rama Fall madame Diack ñu koy remercier bu baax a baax yéen ngi ba tey si seen émission bët set votre préférée di l'Évidence te di ko comme ni ma koy waxee saa su nekk nag émission bi interaction lañ ci bëgg du ñun dong ñun ak yéen la donc di leen joxe seen xalaat ci commentaire euh, ci ni réew mi di doxee ak waxtaan yi am solo yi ñu amal comme ni ñu koy defee saa su nekk sans plus tarder dañuy jàll Mor Fall euh, annoncé woon na ko sànq première partie émission bi nag dañ ci ànd ak journal bu mag bi journal bi di l'évidence quotidienne voilà ak ci commenté lañ ci lañ ci àndal merci beaucoup Rama Fall euh, ñu gis euh, ci page 7 bu journal l'évidence Euh, nii lañ ko daal di titré folklore dilapidation bling bling Aziz Père Ndiaye comme xam nu mu ko waxee nag tout à kii di Abdou Aziz Ale Ndiaye kii di doomam di mama Aziz lañ koy woowee euh, ñu ngi ko doon takk mu doon euh, marié wu ñu gis nag ni mariage bi jur na coow lu bari kaakati am nañ lu leen neex am nañu ñu kaarama faal ci week-end bi mm. rapidement sa xalaat. voilà Kouzita euh, euh, loolu ñu ngi koy fekk ci page 7 tey bu l'évidence euh, tey ci la xëy ñuy wax nag ba tey ci peut-être mariage boo xam ni nag jur na peut-être coow ci réseau yi parce que ñu ngi dégg ku ci nekk doon ci commenter di wax xaalis bi nga xam ni gis nañ ko mu daal di fay bari lool ci li nga xam ne moom mooy mariage mais man je dis que bon sama xalaat la ñoom. c'est leur argent euh, seen xaalis la ñoom ñooy xool nan lañ koy defee c'est comme seen xaalis la te lew na leen te ñoom ñoo ko moom lu leen neex def ci ah. en fait dañ doon amal seen mariage c'est très normal soo amee Euh, mariage wala nga am un heureux événement nga fete ko ni mu la neexee bu fekkee ni nekkul lu araam rek loo xam ne yàlla terew ko rek je pense que euh, doon loo xam ne am na coow boo war na am coow boo xam ne moo ci nekk euh, comme à chaque fois rek Sénégal ñoom dañu bëgg di topp si ay faux problème di wax mais bon je pense pas ni loolu am na problème boo xam ne nekk na ci li li garaaw kay moom mooy li gën a garaaw ci man moom mooy man quand je vois comment les Sénégalais s'immiscent dans la vie des gens en fait di immiscé wu ci vie wu jàmbur di xool ndax kii takk ñaareel bu mu takk nan la def ni dem ba ki nga xam ne sax moom moo doon marié en fait elle était inexistante ñee ñoo ko gënoon a mm-hmm. feeñ parce que affaire de wujjante te te li ci gën a grave moom mooy ñi nga xam ne ñoo ngi ciy wax yëpp amuñu ci dara lu leen leer xamuñu sax euh, peut-être euh, ñooñ ñooñ la ñuy wax euh, ci ñoom ay supposition képp lañ ne mais day day jël seen temps yëpp da ngay gis koo xam ne day am dara lu muy def sax da ko fay bàyyi topp ñoo xam ne am na ñoo xam ñu ci voilà xamuñu ah, leen topp bi jàmm mosuñoo Sénégal daal je pense euh, Cruzita war nañ xoolaat euh, suñu ay priorité tey am na loo xam ne peut boo koy def wala nga am lenn loo def wala nga am occupation je pense que doo attardé wu ci yenn détails yi di lijjanti la vie des gens euh, sénégalais nag comme sénégalais ni mu mel viwu jàmbur daf ko intéressé loolu moom je pense que balaa mu fiy génn wala balaa mu fi jeex dina yàgg Cruzita c'est clair merci mm-hmm. beaucoup xam nga may na rapidement sa gis-gis par rapport à ça mm-hmm. Cruzita boo defee ñu wax boo deful ñu wax <laughs> parce que lii moom jaruta woon sax wax parce que ku mm-hmm. nekk bis bi lay xaar mm-hmm. bis bu rafet mu doon bis boo xamante ne mbégte ak bànneex la mm-hmm. surtout mu nekk doom doom bu jigéen nga war koo bégal ci kanamu moromam euh, ku nekk xam na Aziz Ndiaye euh, nekkul nit koo xamante ne bien vrai que célébrité la parce que ku xam célébrité xam siiw donc euh, bu wootee rek ñëppay wuy si donc nekkul Aziz mooy problème bi sénégalais ñooy problème bi parce que euh, folklore njëkkeewul ci Aziz te du du jeex ci moom. vraiment parce que ñu ngi gis à chaque fois xew yaa ngi am euh, à chaque fois bu célébrité xewle da ngay gis euh, ñëpp ñuy fa. ku ñu invité ak ku ñu invité wul mais ñi ci bëri kaamoo leen fay yóbbu Cruzita. parce que lu ñuy nettali bu ñu ñibbee loolu moo leen fay yóbbu boo xoolee sax comme ni ko Rama waxee sànq doo xam sax. doo sentir sa présence maman parce que wujj yi fii ñii fee te déjà wujj yi problème amu fa ñii ñii ñooy créer problème Sénégal fu problème amul foofu lay jéem a dugal problème donc euh, boo xoolee Aziz réglé na këram bu baax donc Miss boo xoolee Miss ak ay saa sax nga xam ni euh, ay amu fa jàmm rek moo fa amoon Kouzida donc sénégalais yi rek sénégalais yi ñooy bàyyi euh, jaxase bi loolu du du yoon vraiment. <laughs> merci beaucoup euh, Cheikh <laughs> <laughs> peut-être on va parler de Aziz Ndiaye comme euh, entrepreneur Aziz Ndiaye comme euh, homme d'affaires euh, doon may doomam ñu gis mu mu teral ko Cheikh ku ne am nga am nga droit jur sa doom mu mu xewle bés bu rafet nga nga teral ko Cheikh. Bah, je pense que l'essentiel a été dit par Ramatoulaye et, et Maïmouna parce que au fait tout qu'on fait il faudra tenir que ni. dañuy nekk si benn société boo xam ne dafa am ay réalité socioculturelle bu ñu ne dafa am ay réalité socioculturelle Sénégal la façon bu ñuy célébrer mariage c'est pas la même façon que noonu la waa Côte d'Ivoire di célébrer mariage wala c'est pas la même façon que noonu les États-Unis d'Amérique di célébrer mariage donc il faudra d'abord faire la part des choses il y a ce qu'on appelle le mariage religieux et le mariage traditionnel bu fekkee ñu defal li nga xam ne moom mooy euh, li ci war loolu mooy ce qui est normal mais en dehors de mariage religieux y a ce qu'on appelle mariage traditionnel et société Sénégal dafa nekk benn société boo xam ne dafa am ses réalités loolu kenn mënu ko fay jëlee depuis nos grands-parents ba léegi depuis nos ba léegi la façon bi ñuy célébrer mariage peut-être nag ça peut différencier d'une personne à une peut-être Aziz nu mu koy célébrer bokkut ak ni ko Maïmouna di di que célébrité la may mun a sànq moo ngi koy souligner donc célébrité bi ni muy célébrer mariage am bokkut ak ki nga xam ne simple personne wala citoyen lam daal ni muy célébrer mariage am bokkuñu gis nga il faudra ñu accepter nos différences tant qu'on n'accepte pas nos différences dans la société y aura toujours des parce que euh, Antoine de Saint-Exupéry dafa la wax ne si tu de moi lu de ma ma la mooy may ma man ko donc gagnant gagnant Aziz si si déjà yow wax nga ne entrepreneur la businessman la chef d' entre chef la. Hmm. donc c' est tout à fait normal que bu doomam xewlee. mu hmm. génne ay fonds génne xaalisam defal ko si parce que doomam la quoi qu'on hmm. bu fekkee ñi ñii dañu jàpp ne Aziz dafa yàq xaalis ñeneen ñi à côté jàpp ñu ne Aziz day yàq xaalis. donc c' est un éternel débat mais débat boobu yaakaar na ça profite à personne apporté wul kenn. Aziz la famille moo xewle doomam moo xewle jël xaalisam def si. c'est son droit le plus absolu kenn son argent c'est son argent am na droit def lu ko si neex léegi nag l'interprétation bi ci ñii am ak bi ci ñii dem ça importe peu déjà ça pose problème boo déggee Sénégal ñu ànd ay cas lan mooy cas cas lan lay signifie excusez-moi du terme cas mooy mensonge doo mensonge koo dégg ñu naan ko cas wër xamu lu koy waxee c'est un menteur excusez-moi du terme il faut dire les choses telles qu'elles sont donc dañuy dem ba ci société boo xam ne xamatuñ lañ mooy les priorités xamatuñ lañ mooy les ratés or on a d'autres priorités si ay mariage Youssou Ndiaye wala ay topp ay Mame Ndiaye Savon wala topp ay Sidi Diop wala topp ay Wally Seck am nañ leneen lu ñu war a lijjanti loo xam ne loolu mooy jëmale réew mi kanam mais c'est pas du mariage doomu Aziz Ndiaye mooy jëmale réew mi kanam wala Sidi Diop mu génne son réew mi kanam wala Mame Ndiaye Savon mooy génne réew mi kanam <laughs> c'est euh, euh, important parce que ku nekk am nga am nga lu la doy voilà comme peut-être ni mu ko doon waxee ku nekk am nga ay a mhm. euh, juste euh, à à 100 francs disponible sur euh, tous les kiosques euh, Cheikh Diagne dañuy jàll ci sunu deuxième partie émission bien sûr mais laata loolu dañuy ñaax juste mbokk internet yi que ñu wéyal abonnement yi ak partage yi te di wéy di bës ci cloche de notification bi pour mën a